jaa ngeen jëfati mbokk yi wéy ànd ak ñun dañu seetaan boole ci dañu déglu mbokk bi di la wax ne abonné suñu chaîne YouTube bi di Biorahma nga cliqué ci abone bi soo noppee nga cliqué ci kolos bi loolay may lay may bës bu yàlla sàkk lu ñu indilu ne rek nga am ci xam-xam mbokk yi xam ngeen ni ulcère gastrique dafa di loo xam ni daanaka dafa sonal nit ki su xiifee mu metti su lekkee lu weex mu metti waaye du ñàkk am na luy saafara lu ni mel soo bëggee mucc ci li nga xam ne moo di ulcère da ngay daal di def chaque une heure de temps nga daal di jël benn kuddu lem pur chaque une heure de temps nga jël kuddu lem pur soo ko dee faratal di ko def yàlla mën na laa dimbali ulcère boobee daal di saafara soo ko defee deux mois. ci kàttanu yàlla loole nga doon jàmbat lu jëm ci wàllu ulcère mën naa jaaree foofu daal di dëdd kon yow mi am jafe-jafe lu jëm ci wàllu ulcère soo mënee def waxtu wu nekk nga daal jël kuddu lem daldi ko naan soo ko dee def fii ak ñaari weer ci kàttanu yàlla lépp la doon jàmbat lu ni mel dafay daldi di dëdd ko mënul def une temps bu ne ngir sa liggéey mayu la ko ci semaine ci jour bi soo mënee def ñaari yoon dina baax mu daal di ko cicatriser kon loolu lañ leen indi lool lu jëm ci wàllu ulcère di leen jox dox daje ba yeneen i jamono di leen bàyyi ngeen wéy ànd ak ñun te di abonné suñu chaîne Biorahma soo noppee nga wasaare ko du ñàkk am na ku këy déglu bëgg lu nimel mel daal di ko saafara.